Pikine aja sal loxo yi waay sal loxo yi baa ngi nii moo ñuy jàngal bëri ñuy jàngal xale yu bëri kii di bëri tey Eumeu Sène ñun la daan topp ñun ay bàyyi Eumeu Sène ñun lañ daan topp ak boo jaam kon ñun bala ñoo wax daa bëgg wax wàcc leen seen loxo waay sëriñ Babacar si a a nga xam ne benn mbëri bu néew gën su mag Falaye Baldé léegi dem ba tey mbëri ñu naan ñaata sant ma yar koo xam ne ki maa ko ngeen dem mu war a bëri ci doon roi des arènes kon man damay sant yàlla baax a baax a baax a baax trois champion du Sénégal doon quatre fois champion d'Afrique président olympique président de la république bi ku toog doon na maa yow ak yow kon fii tey normalement ci yoon ci kàttanu yàlla yonent bi ndam rek moo fi war a am ndax xale yu góor nañu jàmbaar nañu ndax ni ni ni ni ni ni fàtte ni la force élimine la technique et des fois la technique élimine la force te ma seen dafa mën a bëree kon képp koo xam ne yaa ngi xool na nga xool doy nañ ko yàlla yor lépp mais dañoo ñëw pour bëri ci te yàlla daal pour daan pour am fan. waaw bu dee premier combat royal bi nga xam ne war na ko mën a bëgg a ci gi yëpp defar roi des arènes ndax dina ñëw jëm. waaw loolu yëpp ci mbir yàlla la incha allah day ñëw loolu yëpp mbir yàlla la. loolu yëpp